soo leen bëggee abonné ci chaîne bu mag bii di académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane mu indi leen chaîne bi nga xamante ni mooy tax ngeen am mbooleem information yu bàyyeekoo ci diwaan bu sell bii di Touba ak lu ko wër ngir nag nga abonné yomb na bësal cloche bi lépp yemb su booba dara nag dootu la rawati ci actualité ci communauté mouride ak chaîne bii di Daaru Minane مصدقا لما بين يديه والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم jërëjëf ñoom dañoo nekk ab internat la boo xam ne ñu ngi nekk ci fii ci gédé gu mag ci Touba ñu ànd ak seen jëwrin jii di soxna màgget ñoom nag saa yuy ñu ngi tuddee seen bopp daayira Maam Jaara saa yu jógee Porokhane di ñëw fii ci Touba ñoom dañuy ñëw ànd ak ñoom ci liggéey bi ànd ak ñoom ci tari bi booba léegi nag mosu ñu ñëw siyaare si moo tax ñu àndoon ak waa école bépp ñëw siyaare si la Mbàkke ngir nga ñaanal leen ci daara ji ñoom ñu ngi fi ci gerte gu mag waaw. في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم سكينة بكل الجنة من داري من الياس المنة قبلي سكينة بكل الجنة من داري من الياس المنة